<laughs> Ah, ok, je vais aller dans un autre terrain Là, je vais aller dans le terrain économique. Ah. Alors, monsieur Mbaye, si je me dans les données, dans les statistiques de l'ANDS, si je le secteur au Sénégal, finalement, je parle avec des pincettes, je suis un profane, voilà, n'hésite pas à me corriger. Ah, hmm. dans nos trois secteurs, le secteur primaire, tahiti Sénégal, Il y a plus lu Qui employé ci ay sénégalais actifs jusqu'à près de 80% par contre le mu de Google dans le produit intérieur brut au Sénégal c'est on va dire dans les 60 60 donc dans le monde, Andé, 60 des sénégalais actifs en âge de travail dans le secteur primaire agriculture pêche etc. et donc tu as peu de sénégalais qui sont dans le secteur tertiaire et qui contribuent à près de 60 dans notre produit intérieur brut mais qu'est-ce que vous êtes prêt à faire pour que près de 60 des sénégalais en âge de travail qui sont dans le secteur primaire puissent apporter autant dans notre produit intérieur brut ah, c'est le doigt posé sur un problème important, c'est celui de la négligence de l'agriculture, du secteur agricole. Or, on en fait, nous, dans notre programme, la priorité des priorités. Pourquoi Parce qu'il est inadmissible que dans un pays comme le nôtre, xiif mhm. di fi am te xiif am Sénégal sils am na rapport bu mu génnee yàggut jege nañu benn million un million de personnes yoo xam ne xiif nañu te soxla nañu ndimbal mhm. te loolu fu mu jógee bañ a fay daal mbéy kon priorité des priorités balaa ñuy wax yëfu industrie yëfu leneen mooy faydaal mbéy dekkil mbéy màggal mbéy suqal mhm. mbéy te loolu indi ñaar màggal béykat yi aussi ba nit yi mm-hmm. bañ loolu loolu loolu loolu loolu war indi ñaar mm-hmm. benn bi ñàkk bi am ci dëkk kaw yi wàññeeku mm-hmm. ñaareel bi bu fekkee ne àll naat na dugub du jarati ñaari téeméer ci ci ndakaaru Mmh. Hein? Mais quand même, 1000 francs le kilo. Tes daw, c'était 300 francs le kilo. <laughs> Te loolu wàññi na ci ci kaw yokk njëgi dund bi li nga xam li mi ngi ci borom kër. 1000 mhm. francs le kilo 1200 francs le kilo au Sénégal. C'est cher monsieur Mbaye même même ñun même man léegi su ma demee vacances Sénégal franchement je trouve que c'est cher. mais nous avons nous avons l'une des villes les plus chères du monde. foofu la c'est très cher c'est très cher. te njëgu dund bi ci la. Mhm. kon faydal mbay moo mën a wàññi loolu. Mhm. te am na yoon yoo xam nu ndax nak loolu nekkoon na priorité 2012 hein avril 2012. xeex faydal mbay suqali mbay mi jël ci dox ci ay jéego yu am maana waaye am na lu bari loo xam ne xam naa dinañ ci dellu si au moment d'évoquer am lu bari loo xam ne dañ ko daal di di di teg bay